Eh, teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay bi moo yóbbu mbaxana bi. le 14 août dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxaseeg sénégalais dama lay duma daan la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la moroom muy forcé nii mais le 14 août la xam ne ba si góor a koy bàyyi ah mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak Jam Production la 14 août. Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yamul foofu. kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel. mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee. yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4,99 euros ngeen ko mën a seetaanee. waa Sénégal 2000 francs dong. kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août. arène nationale Fils de Balla ak Gora Sock Jam Production ak sponsor leader bi tuuti chic. barkalla yaay su guddee fooy fanaan barkalla yaay su guddee fooy fanaan prochain adversaire mu nekk xale boo xamante ni moo ko gën a féete xale donc Boy Niang numéro 2 doon combat am tey mën nañ ni enjeu yi bëri na ci combat boobu nañ nga ko gisee. waaw noonu la moom xale moom ak mag chaque jour xale yi génne mag làmb mais nag dañ def attention si loolu mag par des fois di ko bëgg a gën làmb mu toroxal la de fu may waxee dafa garaaw nag Balla Gaye combat boobu respecté na ko trop xaw ma nag gars yi xam nañu ko wala xamuñu ko mun na ta a respecté ay Gris Bordeaux yey na ñëw di lu ko neex parce que ñoom ñoo tolloon mais booy bi Balla Gaye combat bu mu respecté la si combat bi boo ñaa bi loolu moom xam naa si dara quoi sama analyse laay waxee ko xam naa ne combat bu mu respecté la ko loolu mu jël booy bi jëlu ko nii rek te fekk tuuti di xam ne ndax respecté na ko respecté xam naa dina dem yoonam dina dem tukki ji dina gàddaay léegi léegi parce que maa ngi dégg éco suuf combat bu mu respecté la ku la respecté ko rek boo yoroon ngay waajalee Boña Boña xale la Boña mun na bëre mun na xeex attention Boña mun na bëre mun na xeex loolu moom la am na ngay mu leer nañ te attention te Balla Gaye tamit yàgg na bëre ak ay saaru booy saaru taay boobu xam na leen xam na nu mu war a bëri ak na nu a bëri ak yow boo ñaan xale la dafa nekk si yoon moom moo war a gën a combat bi moom la gën a mën a ñor ko Balla a war na ko jaral lu ne lu mu jaral gannaaw rek mu na ko jaral lépp loolu mais gannaaw tamit fonk na combat boobu de boo xamul xam na ko wala xamu ko gannaaw ko fonk na combat boobu trop combat gën a respecté combat Gris ëmb ak Eumeu Sène man maa la wax loolu. kon mun nañu xaar combat bi métti seen diggante. lu ma la wax combat gën a jox ciri combat boobu da gën a respecté. que Eumeu Sène ak Gris Boy Niang combat boobu la gën a Balla Gaye gën a respecté que Eumeu Sène ak Gris si làmb ji parce que xam na xam na quoi parce que dugg booy bi dafa dugg daan rakk ji pour tëkk ko moom loolu mu ngi joué si boobu ba léegi. war a nekk également combat bi d'habitude combat derby au niveau ci athlètes yi lan moo war a gagné lu war a def différence. waaw euh, bi derby man combat derby mais Pikine Pikine nekk derby sax ah xam nga koñ boo xam ne benn koñ la mu nekk dër bi si lamb quoi. waaw boo ñaa géejuwaay kan na kan la fa daan euh, saakees nekkul géejuwaay de sa bu muy daan saakees saakees papam la nekk rudo buun rudo dubales non non bu ko compte non loolu compte parce du licence su géejuwaay mhm. booy dem la boo demee euh, euh, CNG du licence ba ba kii saakees nekkul équipe Balla Gaye la nekk dubales rudo fu mu nekk buun xaw ma Kër Massar mhm. kon bokkul géejuwaay si gaa yi ñoo bëgg ci rakkoo si Balla Gaye la rek dëgg la Balla moo dëkk Géejuwaay nekk écrit Géejuwaay école de Géejuwaay premier école la Balla ko kee nekk écrit papam bokkul ay maga rakk lañ nag ku nekk day demanant ak morom mais bokkuñu écrit ba léegi Géejuwaay la te buun moom buun la waa Kër Masaar la daan ak waa buun daan waa Géejuwaay boobu Sa bokkul Géejuwaay de Géejuwaay kan la daan les deux guy gi xom ak kan su su suyu ma jàpp dugal na fa daanu nest pa la dëgër daanu ko xam nga kon 2-1 la ko yaa suma su su lu ma jàpp quoi man suñu xaw ma nag am na yeneen xaw ma combat yi ndaw ñan la mais suñu ma jàpp si grand combat yi les deux laa jàpp ak guy gi ah, ak la dëgër 2 te foofu 2-1 la am na 2 aman na quatrième combat biir géej waaye nag ñu xool ndax dina nekk 2-2 wala trois 2 lay 3-1 lay doon Combat Ndaw dama xam dama jàppatul kan la bëreel si waa Géejawaay si Combat Ndaw yi loolu moom ma xaw a réer quoi mais combat boo xamante ne nag naa la xamal combat boobu combat bu mooy gën a neex sa combat combat yi fi jaar yëpp naa ne ñoom ñaar ak ne ak Boy Niang tam foofu mais nag mu ngi bëre ak mbër bu mag mbër bu am ginnaaw mbër bu doy waar sax hmm, nga bàyyi xel loolu tamit quoi dama koy dénk sama rakk la bu mu foone Balla Gaye du gaa yi ko gaa yi di wax bu am dina am lu ko naqari mun na ñëw si combat bi forme wala perte repère ñoo beneen combat mel ni musul jóge si làmb sans dépense ni muy préparé wu daal te Balla Gaye mbër mag la am na expérience am na moyen bi kon làmb la boo xam ne daal ñu ngi siy séntu làmb ju doy waar waaw. kontaan nañ di la remercier aussi ci disponibilité bi ñu bàyyi la nga tàggatoo. yéen samay waay ngeen samay waay ngeen sa waay sama waay la xam nga te yoon la tam ñun mënu ñun ñu ak yéen nii la war a demee saa su ne parce que yéen da ngeen di jàppale su lu bëri dañuy.

moo sama ginnaaw moo may jàppale si lépp lu may def si côté équipement côté dàll côté financier côté yëpp waaw mi ngi fii nag agence boo xam ne dañuy dañuy affaire gouvernance dañuy gérer quoi affaire gouvernance PDG bi il s'appelle Tall ngi koy ziar bu wër moog madame Ndour di leen bëggee di leen ziar gis nañ jàpp te yàlla te yàlla leen defal jàmm defal leen sutura def ko si njaboot yëpp waaw waa Fass nag maa ngi leen di ñaanal jàmm leen dal xam na affaire yi moom mbiru yàlla mbiru yàlla la doomu aadama di nga bëgg taram yàlla mooy dogal foofu boo nit da ngay gëm yàlla di nga bëgg a def dara du ant sante ko yàlla bu wóor xam ne yàlla lu gën la def si yow kon ñun li defet bi ñu am nii dañ koy sant yàlla bu wóor a wóor lu gën la suñun ñeneen nag xanaa amaana analyse mënut a ñàkk mais loolu dalee analyse boobu day tax nga nga nekk nit da ngay xool lu ñuy wax ñëpp lu baax li nga jël ko zéro ko leneen lu si des nga teg na la xam ne yow il faut ñu critiquer la yaa bëgg sport yaa si dugg man yow kenn kenn yow kenn kenn kenn du la critiquer

a gàlle yaay su fooy fanaan